ak doxu ñaxtu ngir gën a naqarlu dàqum élection yi. dañoo war a continuer taxaw temm parce que li ñu bëgg amaguñu ko. loolu moo tax suñu marche suba bi continuer am njëriñ ñu war ko def te fas yéene juge foofu bu ñuy tàggatoo ñun ñëpp nañu tàccu suñu bopp tàccu démocratie Sénégal mu law ba kenn doon ko mën a nasaxaayal ci ak fàttali nag aar sunu élection ay organisation ak i mouvement yi ne ci société civile bi la ñu bokk moo ko composé donc euh, Fatou Abdou président Macky wax na ni décision bi dina ko dina ko def waaye teewul euh, manifester yeeg marche yi dakkul. et pourtant nag mënoon nañu mënoon nañu mënoon nañu dalal. parce que moment boo xamante ne moom le président il dessert l'étau maanaam mi ngi mi ngi mi ngi au moins bu fekkoon ne affaire bi dafa teg mu ngi koy dindi. et que euh, conseil constitutionnel bu fekkee société civile bëgg-bëgg mooy ne président Macky Sall li mu def nii dafa violer la constitution moo doon seen wax coup d'état constitutionnel la haute trahison la jox nañu ko tour bu nekk conseil constitutionnel d'accord ci ak ñoom parce que def na président Macky Sall dogal bi nga xam ne jël nga ko muy abroger loi bi nga xam ne moo convoqué le corps électoral pour élection présidentielle 2025 25 février 2024 25 février d'accorduma ci maanaam dama ko neenal foofu war nañu mën a am au moins euh, Euh, brin d'espoir ou même de confiance ak mbégte boo xamante ne war na leen mën a habiter et ci fi ñu toll ñoom ñëpp xam nañu ne bu jafe-jafe amee société civile la ñu ciy xaar parce que ñoom ñooy nekk daanaka l'arbitre ñoom ñoo mën aujourd'hui tey même bu ñuy waxtaan dañu leen di woo ci waxtaan boobu mhm. lu mel noonu bu amee situation bi toll fii entre vingt quatre heures muy démb ak tey kutewul euh, dara société civile mu sursoir ci loolu nga xam ne mu ngi ko doon woote muy manifestation boobu constitutionnel redoré na le blason de la justice joxaat na Sénégal li nga xam ne moom mooy constitution bu dëgër ak bànqaas yu dëgër ndëgër laay bu dëgër ban ne république la ne serait que pour ça parce que li ñu def tey mu amaat ay sànni grenade lacrymogène ay manifestation mu mënoon déborder amaana ñu tegaat yi yeneen loxo je pense que loolu bokkul ci li nga xam ne mooy décrisper aujourd'hui climat wala espace bi nga xamante ne ci la ñu nekk te soxlawuñu loolu parce que il faut ñu dem élection présidentielle mm-hmm. faut ñu choisir une date mhm. pour choisir une date président du moom kese moo koy def il faut que mu bokk ak ñi nga xam ne ñooy les principaux acteurs et société civile ci la ñu bokk euh, li ñu euh, mu toll nii euh, situation bi fi mu toll xadi mhm. je pense que ñëpp ñu toog dalal réew mi ba réew mi dal amaat beneen souffle je pense que moom mooy li war que ki nga xam ne moom moo jiite et que sénégalais ñu tànnoon mhm. ñu wax ko war a jeexal le 2 avril bien sûr moom ci boppam moom mi ngi dox ci tànku jàmm ñi nga xam ne ñoom la ko seqal aussi nañu dox ci loolu et que Sénégal mën a génn génn ci situation bi nga xam ne ci la nekk tey. Euh, président tey euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon manifester tey ak ñi war a def suba sax daanaka ñoom seen combat euh, saafarawu na. Mmh. Mmh. non je pense que <clears throat> Fatou wax na dëgg situation moom dangay ngay da ngay réajusté wu. c'est vrai que amoon nañu lépp pour vraiment se mobiliser et xeex pour que démocratie bi nga xam ne ñoo ko bokk sartu réew mi nga xam ne dañ ko fëq ñu taxaw ba nga xam ne kenn du ko jàll et je pense que tey euh, conseil constitutionnel loolu ñu doon jooy yëpp delloo na ko e je pense que bu dee euh, démocratie lu ñu metti woon mën nañ ne conseil bi delloo nañu ko mhm. à partir de ce moment là nag je pense que mën nañu euh, def ndànk def avec attention aussi parce que dëkk bi aussi fi mu toll nii je pense que xel la gën a laaj xel la gën a laaj ak ubbeeku mhm. ne être à la disposition de tout le monde pour que ñu toog trouver une solution pour en tout cas le temps qui reste pour président Macky Sall sànq ñu ngi doon wax aussi may ko aussi moom it une petite parcelle sax mu mën ko utiliser pour mën a pour mën a génn parce que aussi bu fekkee ni dañuy continuer di forcer rek li ñu li ñu dépassé mënuñu ko vivraat pour le temps qui reste parce que li Sénégal dund en terme de de de de de crise ci ci ci ci période bi ñu traversé loolu mënuñu ko dundaat li dese président Macky Sall de ce moment là comme léegi il est acté le président Macky Sall mënul teg benn fan à partir du de li ci des nag xel la ak xalaat ak dal ñu toog xool faisabilité bi ñun ñëpp pour mën a trouver une solution mais maintenant éviter ay confrontation yoo xam ne day gën a yàq suñu image rek. Mhm. parce que tey jii pour man bu F24 bi mënoon nañ ko dindi comme c'est pas autorisé je pense bu suba bi. c'est autorisé donc ñoom peut-être waaw mën nañ def boo xam ne c'est autorisé ñu encadrer leen mais bu tey bi pour man jarul woon a jarul woon vraiment forcé quoi. Mhm. Euh, ay euh, organisation yu nekk euh, ci organisation société civile bi ñoom ginnaaw ba ñoo rafetloo dogal bi tukkee ci conseil constitutionnel la ñu bëgg mooy list bu ñaar fukki candidats yi ñu maintenir liste le ci seen jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi experts électoraux yi sàkku ci administration bi ñu amal élection yi ñetteelu fan euh, jàpp fukkeelu fan bu weerub euh, mars ñoonu ci ak Dame Ndiaye ak Germaine Dior kuréel googu lay ëmb ñu seen xel màcc ci wàllu wote ñi ngi rafetlu ndogal bi tukkee ci conseil constitutionnel. acte bu bu rëy rëy la bu am portée bu historique boo xam ne ñun ñëpp ñu ngi koy rafetlu. gannaaw ndogal bi nag kuréel gi ne moom lii lay sàkku. liste candidat yi nga xam ne moom moo ko arrêté publier ko le 20 janvier 2024 loolu ça reste bu ñuy dem élection ñooñ ñooy dem élection. ñaareel ba conseil bi wax ne euh, élection bi naam date bi nga xam ne moom lañ ko jëkkoon jàpp le 25 février 2024 euh, duñ ko mën a def ci jamono boobu ñetteel bi ñu euh, ñaax ñi nga xam ne maanaam ñooy kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo féete wàll woowu muy président ak ñooñu ñu jéem a fexe ba def élection bi vraiment ci date boo xam ne ci nu mu gën a gaawee la gannaaw ba ñu waxtaanee seen biir nee nañu wate yi gën gaa yéex mën nañ koo jàpp ñetti fan jàpp fukki fan ci weeru mars. gannaaw ñun bi ñu ko seetee ba noppi war nañ koo mën a def dimanche 3 mars wala dimanche 10 mars dana tax la nga xam ne maanaam app bi ñu may président la république pour mu bañ a jéggi mandat muy le 2 avril. dina tax maanaam app boobu donc ñu bañ ci àgg. kuréel googu yi ëmb ñu fare ci société civile di dox jàmmi Sénégal ñi ngi woo mboolem ñi nga xam ne ñii dañoo nekk ci làng politique gi rawat na njiitu réew mi mu daal di am ak mat ak daye goo xam ne gii dana félatal yu bëri bëri ngir ñu génn ci guute gi Sénégal nekk. ginnaaw acteur euh, société civile yi ak way politique yi askanu Sénégal ñoom itam nan la ñu gisee dogal bi tukkee ci conseil constitutionnel euh, ñenn ci ñoom tase ak suñu reporter Adjaratou Aïcha ñi ngi ñu ngi koy euh, rafetlu waaye nag la ñu bëgg mooy ñu amal élection boo xamante ne ñëpp dinañ ci bokk ginnaaw ay waxtaan yu ñuy amal ci lu yàggul dara ñu ondu ci ak ñoom. Je décision. Le Conseil constitutionnel a dit le droit. Il a les prérogatives, il est le seul habilité à reporter une élection Et hier, il a reporté la date de l'élection présidentielle du 25 février 2024. constitutionnel su waxee ba pare moo jiite lépp su waxee dañ ko war a topp moo yoon. demander aux acteurs concernés de se voir, de pouvoir discuter et de préparer une élection dans les meilleurs délais. Les meilleurs signifient en droit les conditions idoines pour avoir une élection transparente et inclusive. Organiser élection. Pour cela, il faut aller vers la table de négociation, vers des concertations ou bien vers un dialogue inclusif et participatif de tout un chacun. Prendre euh, l'exécutif dans des délais très brefs d'organisation de, des élections. Si les acteurs politiques politique le refuse, c'est eux, ce, ce, ce seront eux les perdants. Il faut que les gens acceptent de s'asseoir autour d'une table et de discuter pour avoir une élection présidentielle inclusive et participative. ngir indiwaat jàmm ci espace politique bi ñu ci bari euh, ñoo xamante ne caabi daf leen féete woon ginnaaw euh, ni ki démb euh, dañu leen a bàyyi ñu delluwaat ci seen ay mbokk ligue sénégalaise des droits de l'homme jàpp ni li ni mel li muy firndeel rek moo di ñooñu ay détenus politique la ñu woon te loolee nguur gi yàgg nañu ko weddi Denis Ndour rax ci yi ne doomu aadama yooyu li nga xamante ne caabi daf leen féete woon ginnaaw dañu leen a war a jox ay ndàmpaay ginnaaw bi ñu leen téyee lu ay weer yu yàgg ak Denis Ndour ci jokkoom ak euh, Abdoul Aziz Sow Dabakh yàgg nañ ko wax détenu politique du dara koo xam ne dañ ko jàpp ci xalaatam ci gis-gisam du wuute ak gis-gisu ñi nga xam ne ñu yor nguur ñu jàpp nag ne bu fekkente ne ñoo ñeneen a jàpp ñi ay weer ñi sax at wala mu ëpp ko ñu xëy xëy rek bàyyi leen te fekk amuñu procès amuñu dara jàpp nañ leen